mais man dégg naa barki démb taale si mu ne mba euh, mu bàyyee Macky Sall dafa yónnee ci moom di laaj ne ko laajal taale ndax jot na wàllam ci mbuur kaat <laughs> donc dañ ko pàccoo ah, séddoo ndax na wàllam parce que donc tout dema dafay démentir li Ablaye Seydou Sow wax ah, ndax jot na wàllam ci mbuur kon cela veut ni moom Macky Sall dafa ñaawoon jot ni taale si la lu mu jotul wàllam moo tax mu moo tax mu mu gedd bàyyi parti bi mm. loolu rek signe la nga jóge ci loolu Babacar kër la xaw ma. Babacar Diop le maire de Dakar le mm-hmm. ñu ne ko lan moo taxoon mënoo woon divulguer liste bi mu ne liste bi daf ci amoon ay sëriñ yu ci. ay kilifa yu ci bokk. loolu du du wax ku responsable quand même. <laughs> il pour qui. ay ah, ñoom dañu yaakaar ni population bi ñu ñun ñëpp ay. ignorant la ñu jàpp ni sëriñ si sax ñoo gën askan bi. pas de question sax ay gën ak ñàkk gën ak kër kër mais injustice injustice la <laughs> mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam mhm. dans les prises de guerre mhm. mais bu ko daan séddalee mais danaan am ay confusion mhm. danañ dem sax ba mu am ñu koy accuser de partialité ba yàlla di wàcc di ko défendre <laughs> mais Mohamed da doon sallallahu alayhi wa sallam da doon affronter dafa doon affronter réalité bi discuter exposer mu am transparence parce que boobu moom la prophète la mais en même temps général de guerre la mais en même temps gouverneur la. mais yàlla ba yàlla wàccee décret ne prise de guerre bi ñu ko jëlee un cinquième bi yonent bi moo ko moom ak famem ak miskin yi ak fakir yeeg ak kii. Mhm. muy un cinquième bi. quatre quatre cinquième yi ci la ñu demoon ci xeex bi di séddoo. mais un cinquième mi mi ngi ciy sóoraale aj ñàkk ji. Mm-hmm. ñi ñu bàyyi woon ginnaaw muy social bi. Mm-hmm. Euh, donc man je ne comprends pas ban statut lañ bëgg jox sëriñ boo xamante ni. Mm-hmm. sëriñ du mën a toog wax ak population bi. wax ju leer lu dëppoo ak justice. loolu itam jafe-jafe la. ah <laughs> jafe-jafe la ci suñu réew mi. mais su boobaa kon yow ban xeetu sëriñ nga boo xamante ni da nga sonn xam nga man Sénégal population bi dama leen yërëm. parce que politiciens yi bu ñu bëggee falu euh, euh, ci ci ci ci ci askan wi la ñuy dem. Mm-hmm. événement religieux yi ku ci bëgg organiser événement religieux ci askan wi ngay jëm. mais askan wi bu soxlaa kan moo koy taxaw. loolu itam problème la. ah. loolu itam problème askan wi ñuy jàpp di ko dóor. Mm-hmm. di ko rey di ko xoxtata xoxatal. di ko xiifloo di ko marloo. muy jël di joxe itam muy feebar te du faju mhm. ba pare te yéen moom ngeen yaakaar mais kooku kan lay taxawal léegi askan wi. Hmm? doy na xam nga sa con Macky Sall la xawoon na fi créer toute benn confusion. Mhm. boole askan wi ak sëriñ si. ah parce que tey jii euh, deux mille vingt et ba affaire yi bëggee déborder. Mm-hmm. kilifa diine yi ñoo ñaan njëkk askan wi. askan wi bàyyi. Mm-hmm. mais Macky Sall loo mu waxonte woon ak kilifa diine yi reefu defu ko. jaxase woon na askan wi ak kilifa diine yi. Mm-hmm. mettre leen mal <laughs> ba ci dellu tout récemment de la faim bi. bu Ousmane Sonko bi lan la promettre woon wax leen ko mu bàyyi grève de la faim bi bu ko bàyyi après dinañ ko libérer ñu bàyyi ko mu continuer téye ko xotti war ma kilifa diine yëpp mm-hmm. di utiliser corruption boo xamante ni kenn xamul nu mu demee ci alalu dëkk bi taxawul fii ak euh, Mansour Sy Djamil ne ko yow sëriñu opposant nga du ma la cibbal dama lay compal <laughs> mais ñàkk teggin boobu ak ñàkk yar boobu mel ni li muy compal moom moo ko. moom moom moom moo ko moom. non Macky Sall moom ñoom jàppoon na ni Sénégal alalam la moom depoon na ba jàpp ni nguur gi alalam la parce que fii la taxaw ne bu ngeen bañee ma def troisième mandat da ngeen ma koy ñaan ci njëkk. xaw gis nga fi mu taxawoon. te mu taxawoon moo ko permettre woon moo les élections dix heures avant. le un imposteur. j'étais un imposteur un tyran mhm. quand même donc il faut que ñu éviter di accéder il faut que ñu éviter éviter loolu di répété wu ci Sénégal quoi. surtout d' accord mhm. ba tey ci li jëm ci wàllum foncier bi ak corniche beeg yooyu euh, ñu doon xaarandi liggéey diggante le le président de la République ak le maire de Barthélémy Dias mais boobu ba léegi ça tarde ba Alioune Tine di sàkku à ce que euh, ñu jéem a waxtaan ñoom ci seen biir pour ñu ànd liggéey le président et le maire de Dakar Barthélémy Dias. mais dañu xam nga man li ma xaw a jaaxal ci Sénégal. Hmm. muy que Barth dañ ko fal ah. Barth dañ ko fal. Hmm. c' est l'élu du peuple de Dakar. waay ouais. ouais. bu fekkee ne ñun ñëpp on reconnaît que Ousmane Sonko ko fal ci suuf. Hmm. Pastef foo ko fal quoi. moom nag da koy doon bañ mais élection yi wane na ko quoi. tu vois mais bu fekkee ni am na ay projet wala vision boo xam daf ko bëgg réaliser. ci Dakar. je pense que bu fekkee ni da ko bëgg réaliser état bi créer ko obstacle. moom dafa war a génn wax population Dakar daal ne bëggoon naa def lii bëggoon naa def li demandé naa état mais état permettre ma ko pour ma réaliser ko mais tam moom sàkk woon na à ce que le président recevoir ko. pour quelle raison en tant que maire de pour quelle raison. pour peut-être liggéey Dakar. mais na na na na na na na na defar projet demande audience. pour pour am na am na ay projets yoo xam ni état du Sénégal moo fi bi nga xam ne état Macky Sall moo fi bàyyi woon. bu fekkee te moom moom aussi moo nekk nekk na maire mais dafa nekk le maire de la capital du Sénégal. mais pourquoi du jéem wax ban cause moo tax mu bëgg audience. yooyu eh, boo ñaan audience dina am cause non. waay cause moo tax mu bëgg audience. est-ce que ko aussi le président. mais na génn wax ko lan moo tax ñun suñu homme politique yi duñ communiquer duñu informer peuple ban cause moo tax. waaye itam jàppul ni euh, kersa da cee am seen diggante. waaw trahison yàgg na ci homme politique <laughs> wor. Mhm. non yàgg na ci homme politique yi yow tamit. ak eh yow politique yi ñoo mën a warante tey saagante tey dëmante dëmante tey bu subaa ñu ak dara mais jeune bi fi muy am mooy moom dafa jàppoon ni politique la tey boo yëlee du ñu ay om politique <laughs> parce que booy xool foofu mm-hmm. euh, euh, Barth moom it dafa nekkoon ci teg xel ko far yàlla tamit euh, dogal ni parce que moom ni mu li mu bëggoon mooy que comme ni mu ko doon waxee. que ñu jàppale grand bi. waaw doomu ndey nañ jàppale grand bi benn mandat lay def de bu ko defee deux mille vingt neuf kii libre lay nekk. champ libre. champ libre lay nekk mais moom est ce que su boobaa moom du ñëw deux mille vingt neuf pour nekk relever défi bi. <laughs> wóorul. d' accord rapidement ñu avancé ndax waxtu li ci des bariwul. Mhm. Euh, Ousmane. Juan Branco avocat Ousmane Sonko. Mhm. génn na euh, constitué benn euh, par quinze euh, partie civile ñoo xam ne dañuy daal di def déposer ay plainte contre Macky Sall. Mhm. ba tey moom bàyyigul dossier CPI bi. ci li nga xam ni moom la ñu jàpp ni dañ ko toowee tumaale Macky Sall mu di crime contre l'humanité mhm. ci événement mars yi ba 2024 am yaakaar nga ni chance am na ci yooyu les plainte ñu toppee ko président Macky Sall mais moom victime la ci biir victime yi la bokk ah Juan Branco. waaw ci naka. ah mais jàpp ñu ko fi tëjuñu ko. mais dañu décerné woon benn euh, euh, benn mandat d'arrêt international. ah contre sa personne. Ah, dañ doon soobu rek. ñi dañoo ñeme tubaab. lan moo tax bi ñu ko jàppee kenn wattu ko. Hmm? fekk ñu fi jàpp bu ñu lay dugal ci kaso bi dañ lay wat tax moom kenn wattu ko. ndax mais boobu jugement war war fii bu ñu jàppee kaso bi boo fay dugg way teg sa tànk dañ lay war avant ngay dem tribunal. mais gis nañ ñoo xam ne itam jàpp nañ leen te watuñu leen. yàlla na la yàlla fexe nga ci saa amin <laughs> ba ñun suñu poli ñii ñii dañu def dañu ñemewuñ tubaab suñu politiciens c'est des complexes c'est des complexes mandat d'arrêt international. tëj doomi france ak tëj yi américain ak doomi espagnol ñun suñu kii yi suñu juge ak suñu kii na nga ko mos a dégg senegal eh, mëtuma ko dégg ah yow fii li gën a grave sax ñu moo fi daan am dañ leen gis ay trafiquants de drogue internationale ñu jàpp leen ak ay concitoyens duñ def ci kaso bi une semaine ñu bàyyi leen ñu dem mhm. ñun colonisation mentale bi ba léegi daf fi des mais boobu dina briser ak le nouveau gouvernement. ah mais je pense bien parce que ko le fait que Ousmane Sonko Diomaye demaguñ France ba léegi. Mhm. te tubaab tubaab bi ñoom ñi ngi ñëw. loolu rek c'est un bon début. loolu c'est un mais les Et chances de de de de ces plaintes là contre Macky Sall à la CPI. mais euh, dégg nga amnistie bi concerné wul du plainte yi dem fële ah. non non. au moins justice bi ñu ko mënul rendre au niveau du Sénégal mais mën nañ ko rendre au niveau de l'extérieur quand oui ndax tey rek am na benn euh, ju benn jugement bu wàccee ci benn ministre Ousmane Sonko bi nekkoon ministre de l'intérieur gambien. Mhm. Euh, ñu tëj ko euh, vingt ans de prison. pour crime contre l'humanité ci nguuru Yaya Jammeh. oui oui te waa ji dafa yor ay preuves. Mhm. dañu yor ay preuves dañu yor ay no yor ay kii am ay am mhm. image am ay image fii gis nañ li fi newoon li fi xewoon Sénégal bàyyi ay pick-up yu amul matriculation. ay nervi yi nekk ci yor ay armo de guerre ci siège itam di jóge di génn ci siège di dugg ci siège di romb alkaati yi di agir à côté des gendarmes et des policiers et le fameux numéro 9 ouais mais loolu c'est flagrant quoi